jërë ngeen jëf mbokki internet tim topp ka 221 ginnaaw ba ñu leen nuyoo di am bégte ak contentement ci ànd bu rafet bi nga xam ni yéen a koy ànd ak ñun saay su nekk bés bu nekk dañuy daal di door kàddu yile ak naqar ak di wax inna ile yi inna ilayhi raji'un boo leen ko déggee xam ne naqar ak tiis dalooti na ci tiktokeuse bu mag bile actrice bu mag bi di wuyoo ci turu Bibis Ndiaye dëkk ca diwaanu Malika ni ki tey ci mardi bile yemook le 15 octobre 2024 la ñàkk waajuram bu jigéen boobee mu nekk nag xaraktis bu doy waar lool bi nga xamante ne jamono bii moom bi bis njaay mu ngi koy dund ndax kenn ku ci nekk xamoon na fan la tolloon ci waajuram bu jigéen boobee à tout le temps danga ko doon dégg ci ay kàddoom mu naan dama bëgg màgg dama bëgg liggéey dama bëgg tekki teral sama waajur moom bi bis Ndiaye waajuram boobee nag moo daal di ñàkk bakkenam niki tey mu doon xibaar bu tiis lool ndax jamono bi mu ngi koy dund askanu Sénégal di ci ànd ak moom ca boobee naqar ndax Bibis Bibisu Sénégal la ñëpp a ko bëgg ñëpp daal di sopp Bibis à travers ci vidéo li nga xamante ne moo di ci comédie yi muy def moom Bibis nag jamono bi mu ngi dund naqar allo Sénégal yëkkati ab jaal di ko teg ci jëm jooje di ko ñaanal waajuram bu jigéen boobe yàlla na suuf sedd si kawam te ko àjjana ak képp kum fa daal di fekk li moo nekkoon naqar ak sa di leen wax wéy leen di abonné activer cloche notification ndax mbooleem xibaar bu ñu dugal ngeen mën see jot ci lu gaaw Allô Sénégal Allô vos besoins